yëkkati naa ñun baadoolay day ñi ngi seetaan waaye saa si tembe réewum Sénégal suuf si ña ngi koy jël bi jalaa ñoo ñebbe di ko def nag séddoom bukki bii bukki bii njuur bii sàmba turbine yéene kaay ne ma sa séddoo nañ ko jeex na si de Tobago barki dem boo njaay jafe-jafe yi neen lañ wax ci wàllum suuf yéene kaay bi dee média bi ne ma demal ca mbaan gaa yaa ngay jël suufu askan wi da ko jax ña leen saf mameel gi gaa yaa ngay tongtongee alaluk askan wi l'hôpital la Dantec jaay nañu xaaj wax te kenn waxul UCAD moom université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ña ko bëgg a tongtongal fas ko yéene lewal Tiwaawan pël coowal suufa nga fa Géejawaay coowal suufa nga fa tribune yéene kaay ne ma Sénégal day loo ci mënti dégg ab suuf la soo xam ni coowal suuf moo ko naranal meer du fi jeex ca jamonoy maître Abdoulaye Wade jaaree ko ci président Macky Sall ma ne la coowal suuf mës ta tàqalikoog réewum senegal gaa yi daal fu nu gis tagg te bu ñu daggee dañuy jaay mbaa ñu daggal seeni mbokk yéene kaayub dee média bi ne ma demal ci bande filao yi fii ci Géejawaay tongtongee nañ ko ba maar day taali ay personnalité ak ñoo xam ne dëkkuñu réewum Sénégal lañ ci tudd ñu jël suuf si askan wee ko bokk ak ñoom ndax nag loo ci mënti dégg askan wee moom seen suuf tribune yéene kaay ne ma terewul na nguur geeng ci teg loxoom ba mu dëgër këcc di tongtongee num ko safee l'évidence yéene kaay ne ma scandale foncier bu mu jëbi mingi mi ngi nii benn nag pàccuk université bu ndakaaru lañ bëgg jël nag jox ko ñeneen bi yoon nag tongtonguk suuf gi enseignement supérieur bi la laal yéene kaay bi ne ma bugaan géey dani day daal dinay artu moom jiital gëm sa bopp évidence yéene kaay xamal ma ni moom ci boppam moo joxe information bi daal di xam leen nag bàyyi bu toll ci juróom fukk ci ay at ci loo xam ni nag maanaam juróomi million ak fanweeri junneeg ñaar mooy tukkee ca boobule location ñu jébbal ko nag ku ñuy woowee Léopold Ngom Bougane Gueye Dany wax de moom Bougane Gueye Dany ne Léopold Ngom ci boppam moom société bi nga xam ne moom la ñu war a jébbal baayu juróom fukki at bii Bougane daal di artu ci mbir mi daal di nag interpeller directement waa SAES e xamal leen ni ñaari junni ak juróom ñaari téeméeri hectare bu université ba day ma ngay nax saay ca la jàngalekat yi nag daal di fippu lii nag duñ ko bàyyi mu jàll su dee nag nguur gi dafa dëgër kemm ne dina joxe suuf si soo moytuwul nag ren ji rentrée université ci boppam la ñuy banque seen loxo duñ ko def tribune yéene kaay ne ma waa sayesit ña ngay artu day Abdoulaye Daouda Diallo xamal ko nag na annulé lu mu gën gaawee lii ñu bëgg def lu ko mooy nag jafe-jafe dina am ci daar ju kawe jii di Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru direct news ne ma Sénégal jafe-jafey neen la de yaram buy metti la amul ruq bu sedd yéene kaay bi ne ma njëkk yi yokk ci réewum Sénégal ba askan wi amuñu buñ defee bii muy dund lii la ñu war a laaj yéene kaay Pape Jogoy Fay bi ne ma suñu demee ba réewum Sénégal benn kilo sob soble ñu koy jaaye ñeenti téeméer benn kilo ñebbe ñu koy jaaye ñetti téeméer ak ñaar fukk nam yàqu na may sa baabu économiste nay dara justifié wul nag yenn njëkk yi niñ leen di jaaye ci réewum Sénégal cher bi laaj ba samp kay mooy ndax Sénégal ci boppam am na ministre du commerce ndax moom dafa ni dégg rek asoom waxul dindiwul xeexul attewul xeex fasul fecciwul bàyyi nag jaaykat yi ñuy tong-tongal askan wi xoj leen ba maar day taali kenn waxul moo tax yéen kaay bi ne ma askan wi directement président Macky Sall lañu interpellé ndax nag metti na ci ñoom ba jéggi dayoo le vrai tongtongal gii nga xam ne ñu ngi koy tongtongal sénégalais ci njëg cher yi rawatina nag di xooñ ñooñal doomu réewum sénégal yi loxol syndicaliste yi jógu ci ndax nag ñoom ñi war a défendre sénégalais yi ñoo ni patt yéeni kaay bi ne ma ku dul guy mari sagna dégguñu la nga kaasal askan wi Le Soleil yéeni kaay ne moo na njëkk yi léeg ñu wàññeeku démb ndaje bi nga xam ne ministère du commerce amal nañ ko ak ay PME ña ngay xool nag naka la ñuy wàññee njëkk yi syndicaliste yi nag nekk ci xool ndax njëkk yooyu wàññeeku na booba turbine yéeni kaay ne ma sénégal ci boppam moo bëri jafe-jafe yi ñi ngi interpellé président Macky Sall ci jafe-jafe nga xam ne teggeekul ak ñoom juróom-ñett ci ñoom faatu nañ ci benn ayu bés lu toll ci juróom-ñaari téeméeri millions ñu daal di koy ñàkk ñenn ci ñoom réer nañu ñenn ci ñoom kenn gisatu leen abadan lii ko di ñeene ma problème ya jeexagul de ndax nag Air Sénégal moom it beneen problème la ma nga ca fayit baaxul santul yàlla Air Sénégal te ma nga jëm nag ci nërmeelu ñeenti milliards la Air Sénégal ñàkk yore bor yu dul jeex war fay nag ñu bari ñoo xam ne daf leen yoreel bor mu di ña leen jox roppalaan ya ba ci salaire ak yeneen ñeenti milliards milliards ci boppam Air Sénégal ñàkku ko bor ya nag moom foo ko takk weesu na ko ndax bari bés bi yéen kaay ne ma booba coow laa nga ci fajkat yeeg askan wi ci defante yéen kaay bi ne ma coobal Dura Diallo gi Kédougou nag soxna yi ci boppam ñoo jóg fippu ñoom nee nañ nag dañ leen di xooñ ñoo ñal di leen maltraité ci biir l'hôpital yi booba waa SAMES ñank ñetti fanu gréew gréew yooyee daal dinay journée ñett ci soxna bañ leen di rawale feneen foo xam ni kenn gréew fa dañoo wasin ci yoon wi ñaari liir ci ñett yooyee daal di ñàkk seen bakkan ci saasi terewul ñoom fajkat yi ña ngay gréew le témoin yéen kaay ne ma ñeneen ñaa ngay politique boobee yéen kaay bi na ma inter intercoalition yeewi wàllu de nar na xajamal nag cee rek di ko Karim Meïssa Wade ci réewum Sénégal masaalikul jinaan pacte ba nga xam ni defoon nañu ko fa diggante président Macky Sall ak maître Abdoulaye Wade te xalif général des Mourides teewee woon ko ngir Karim sa Wade daal di ñibbisi waat ci réewum Sénégal boo moytuwul du am ndax nag président Macky Sall ànd bii mu gis diggante yeeweeg wàllu soo moytuwul dina tax mu laqaat Karim Meïssa Wade Serigne Mbacke Ndiaye ne Karim Meïssa Wade dafa war a dikkaat Abdoulaye Wade topp ci ñu ànd ñun ñëpp fekki président Macky Sall ndax nag lii ñuy lekk neex na ba noppi xoroma ci manqué te Karim Meïssa Wade ak président Abdoulaye Wade la source a mel ni ku naan man Karim Meïssa Wade day ñibbiseem ci yàlla rek la des ndax nag Ousmane Sonko lum leen jege doyul lii nag daal dinay jur sax malaise ci biir yeewi askan wi yéen kaay bi ne ma ca présidence bu assemblée nationale député Aniya daal dinay xamle ni coow laa nga fa ci biir yeewi askan wi ndax nag jamono jii dafa daal di senn ne Ousmane Sonko ci boppam jàppalewul Barthélémy Diaz dafa bëgg jàppale Lamine Thiam bu parti démocratique sénégalais moo tax nag tembe taxawu Sénégal ak Ousmane Sonko seen diggante neexatul te bu législative yi passé moom Ousmane Sonko sax dafa war a concentré wu ci diggam ak Adji Sarr le quotidien le quotidien ne day la ñu fas yéene Ahmed Aydara ngir mu bàyyi moom El Hadji Ahmed Aydara yéeni kaay bi xamal ma ne Barthélémy Dias ci bopp lii la ko bëgg naxee ba am désistement am ndax xamal nañu ñu El Hadji Ahmed Aydara ne leen bu El Hadji mii bàyyee Barthélémy Dias nekk président assemblée nationale mucc yi nga xam ne yu kaso la booba wal ay chantage la ñu toll politique réewum Sénégal a demee nii critique yéen kaay ma moom Awa Gueye ñetteel bi mandat lay xeexal président Macky Sall tribune yéen kaay ne ma campagne de la daal di lancé ñaari million soxna la bëgg ngir ñu xeexal président Macky Sall 2024 ngir mu am ñetteel bi mandat moom président Macky Sall gën a dëgëral suñu démocratie xeexal suñum réew yéen kaay bi ne ma lii de la Awa Gueye woote tribune yéen kaay daal di may xamal ne imaam Alioune Ndaw day daal di nay làqu moom imaam Alioune Badara Ndaw ni ki démb la ko def las yéen kaay ne ma ko dippee boromam ni ki démb vox populi ne ma démb lañ ko jébbal boromam ca ngaan libération yéeni kaay ne ma balaa ngay daaneel demal ca jam ñaaja fëla tës bi nekk ni ki tey Siise ku mu bokkaloon location la daal di lakk ba maar day taali doomu faatu jaray jàlloo mii moo tuur boolu ceebam ndax da doon football këpp kook bal ba Udaay Siise tàngal ndox daal koy xëpp nañuy ñaan jàmm ak fu ñu toll di ak sunu sago ak lu mën a amit mbokk nañ nekk ci jàmm te